lay pose ongul nee leen lu mu pose ci réew mi baaxul da lay pose mu normal jub émail bu normal émail boo xam di xollee ko péri du wan pose ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen ma rek te yàlla tax fi mu ne càmbaaba rek laay toog mu ko càmbaaba xaar leen kere yoo bi nag ñetti vidéo laa dugal après avant pare ba mu neex bari doole xool yooyu pose xoolal ma yi pose yu am maanaa yi pose yu am personnalité càmbaabel Demba Caam borom tëngéej nee naa la tubaari kàlla macha allah loo posul baaxul nee naa la pause bari bokkul bu ñu nee pause da ngeen yor benn crayon teg ca benn kol teg ca benn we tey teree pause kat yi toog leen pause kat bu mag baa ngi ni xoolal la ma crayon ma ne ko xoolal samay xef numéro baa ngi noonu Thiam Babel Demba Thiam nee naa ko lu ma rëddut ci diw yi baaxul waaye loo rëddut ci crayon bi baaxul waaw waaw Thiam Babel Demba Thiam borom na ndiwaas noo pause téere la ci réew mi yaa ngi rëqaat de borom gàmm bi tubaarkàlla macha allah ma sœur dama leen woon après avant ak après mi ngi nii di sàjj nee naa ko day jàpp sa tànk yi garaate ko ba mu normal Pape am doxal xale yu numéro yi ñu lay woo partout dans le monde. 77 014 65 49. 65 49. 65 49 nee la foo ko woo te di ko fay lu ko jar mu ñëw nee naa la lu mu posé ci réew mi baaxul gis nga sama loxo yi lu mu kuuñee. dama waaye yéen mbaa noir ay waay coowal xees ci lu ci tee noir di def léegi réunion tee noir day dugg ci sama xeesal mbaa xam ne produit tee noir yi ñëw na moom la da baax demoon jëli po yi nii. da baax ana po yi. po yi laa bëgg rek présenté leen ko nii ma toogee. po yaa ngi ci bunt bi. waaw koo tee non tee marron ak noir yi ak tee marron yi ba pare xam nga gaamu tee noir lan lay am day am diw am saabu am crème de visage am karité bu ngeen hydraté seen yaram bu ngeen xëyee xanaa maa ma ci tee noir dix ngoon lay pare ngoon 10 000 ngoon lay pare ba pare waa tee noir xam nga seen gaam yi lan laa leen ko defaral 10 000 francs dangay am diw am saabu am crème de visage am karité mais commencement bi rek laa leen ko defal 10 000 francs ba ngeen ñam ko xam nga man noon laa mel sama tee noir bi nag moo ngi ne suñu paree moom la moom la ñuy defaral soutien tee noir bi def ci photoom thé noir bi moom réew mi day daal di yëngu ba 0,57 thé noir yi am ngeen ndam ba pare seen produit xam nga fa laa leen ko jëlalee barke Seydina Mouhamed moo tax yàqamtewu ma dara Dubaay laa leen jëlalee seen lait de corps yi ba pare indi leen jar bu bari xam nga thé noir daa war a am jar thé marron tamit am na di te marron mooy bu ñu yokkul dosage réew mi yëngu à tout moment mais thé noir yi laa bëgg a jàpp janang janang ngeen waaw waaw moomoo ngi noonu moomoo sama xarit bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax moomoo di la wax je l'aime fort I love you I don't me waaye di leen wax na leen borom 30 000 yooyu versé na joxe na ah waaye direct bi lu mu neex neex neex na nuy encaissé waale kii encaissé dem na ah yàlla baax na ma ne ko yàlla dina ñëw mbaa yónnee sama caabi ba de gisatuma ko ma ne ko caabi turuwaal ba de gisatuma ko kuli naftin ma ne ko à ah, tout rek réew mi mën naa yëngu jiwu thé noir yu ne muut laa leen defal defal xol ba pare thé noir ba ngaa dégg warul am sérum huile nga ko war a defal huile duran buy hydraté poow muy dundal muy dundal muy tax muy dundal rek poowam boobu la waaw buy dindi poowam thé noir bu ne muut dangaa bëgg a def thé waaw sa gaam ci kaw ma ne ko sa gaam ci kaw gaamu tee noir bu ne muut ci digg Dakar ma ne ko gaamu tee bu ne muut ci digg Dakar mu ne ko lu waay dëgër dëgër rek jooy ci tee noir gaamu tee noir bu ne muut bu ñu paree nag ñëw ci gaamu góor ñi ma ko bu ñu ñëwee rek ñëw bu ñu paree rek ñëw ci gaamu gaamu góor ñi góor ñi moom xam naa ma leen defalee seen gaam dama leen ciy teg rasoir góor ñi bu ma leen defalee seen gaam dama ciy teg rasoir rasoir laa leen